calminen noon miño miño makko amadou ba sehlam e euh, damay wax ne su fekkee woon ne dañ koy wax ci séréer dañuy wax ne te histoire na ko retenir mooy ma Macky Sall fa maak fa maak fa maak ah bugaa bugaa Macky Sall fa Macky fa mat kon nag li am importance dama ne imaam arabi muy imaamu raatib lew na ñaseen te lew na ñaseen fa la alaaji Abdoulaye Niass tëdd président toogoon nañu fii mane la tali bi jëm dakaar jógee Dakar national numéro ak bi jógee Ziguinchor ñaar yëpp dañoo ñëw ba trois cent cinquante mètres ñeseen ñu teggi ñu nga waxoon ne danañ ko fi def ba léegi defuñ ko fi lenn xam naa ko bu leenu ñeseen amul goudron fii Kaolack du ngeen fi am dara waaye nag 31 décembre bu ngeen ko deful man danaa ko def 31 décembre rek imba ngeen def ko wa imma incha allah ñu luyee machine ñu ñëw ñu defar ko ndax jafewul waaye fi alaaji Abdoulaye Niass bàyyi bàyyi Niass bàyyi Khalifa Niass bàyyi alaaji Mor bu Niass tëdd ak i doomam kenn mënu koo siyaara ci jaaroo ci ay ngamar ngàpp boo déparé bëgg a jóge ci tali bi dem ña seen ki départ ci autour bi dem Fatick dana yegg Fatick te fekk yeggoo trois cent cinquante mètres ndax nga mar ngàpp yu bon waxoon naa ko waxaat naa ko dootuma ko waxaat yow nag président. Euh, Ahmed Ahmed. dama lay wax ne la gëj naa laa gis rek. waaw defal ndànk rek xam nga. waaw yow xamante nañ bu baax. waaw. xam nga ne sama xarit nga. waaw. waaye xam nga ne am na loo xam ne tam man duma ko nangu mukk si àdduna. d'accord. mooy wax boo xam ne euh, ni nga ko tegee la. d'accord. bu ñu amul dara Kaolack garawul bu fekkee loolu nga jàpp problème bi ngay wax maa ngi koy dog a dégg ne dafa am trois cent mètres yu war a yegg ci law na. waaw maa ngi koy dog a dégg laa wax man mii. Hmm. kon kay da ngay wax rek xëy na waxoon nga ko nga baamtu ko sama kanam. li nga wax laa wax. ñu def ko waaye nag xam nga. am na nuñ koy defee li nga wax laa wax yaay bàyyi loo wax noonu la. Ah, kon nag jubóo nañu. <laughs> loo wax d'accord naa président loo wax d'accord naa léegi nag imaam arab yi mooy waxal kër gi man nag président. yow dinañ gisee léegi yow. ah kon jeex na loolu laa noonu la ca wa salaam. Euh, monsieur le président de la république.